Mhm. waaw en fait euh, ñu fàttali rek que maanaam kii di soxna Adja Thiaré Diaw mi ngi doon topp euh, maanaam euh, kii ñuy wax Khaliphone Sall waaye boo seetee règlement bi xam ni moom lañ njëkk a def maanaam le procureur de la République daf doon toppee Khaliphone Sall li ñuy wax coups et blessures volontaires voilà loolu nag juge bi ginnaaw bi mu ci àddoo li mu décidé mooy jàpp na ni maanaam loolu ñu koy tuumaal lu am la mooy coup et blessure volontaire bi maam maanaam mooy koo xam ne nii dafa jël maanaam loxoom wala ngànnaay dal ci doomu doomu aadama dóor ko ci coobareem ba ko loolu nag juge bi dafa jàpp ne loolu kenn mënu cee am sikki sàkk lu am la te ci loolu daan na ko lu toll juróom-benni at juróom-benni weeri kaso yoo xam ne nii benn weer bi ci lay tëdd ci wàllu amande bi maanaam daa daan na ko mu fay kii ñu wax ca euh, Adja Thiaré Diaw maam lu tolloog téeméeri donc euh, junni ci sunu alal mooy 500000 francs CFA ordonné li ñuy wax exécution provisoire et la contrainte par corps au maximum. loolu nag ñun en fait euh, euh, dans un premier temps mën nañu wax ni am nañ ci satisfaction parce que comme ni ma ko waxee woon rek ñu danoon na ci état de droit te état de droit képp koo xam ni dafa fàbbi yoon ci anam boo ko mën a fàbbee la la xam ni moo yell rek mooy ni teg la ay daan te juge bi comprendre na loolu euh, maanaam jël ndogalam euh, donc dan ko nii ma leen waxee. te loolu aussi ñun dañ koy respecté parce que xam nga un juge aussi moom il est il souverain après à la suite des plaidoiries moom mooy décider a regard la loi est-ce que lii ñu tuumaal nit am na wala amul te bu amee lan mooy yell ci maanaam daani loolu nag dañ koy respecté mais comme ni ma leen ko waxe woon loolu ci daanaam li ma bëgg a wax ni combat boobu day soog a parce que jàpp naa ni ñun au delà donc des am na yeneen maanaam euh, euh, procédure yoo xam ni waaw waaw wàll ci lu jëm ci wàllu viol bi comme ni ma leen ñun on a saisi le doyen du juge par plainte avec caution de partie civile te incha allah dañ koy topp ba mu ba jeex waaye parallèlement on a même également estimé devoir effectivement délaisser une citation directe en fait pour violation donc de la loi de 2008 notamment sur la protection des données à caractère personnel mais aussi en fait donc en fait li ñuy wax la diffamation donc yooyu yëpp incha allah dañ koy topp ba mat sa parce que jàpp nañ ni tooñ gi jéggi na lu ëpp maanaam ay ay ay CVB mais am na leneen loo xam ni yoon daf ko war a leeral te incha allah duñ ko bàyyi den ko topp ba mu sës bu neexee yàlla suñu bopp waaw non xam nga loolu conclusion wu maanaam maanaam euh, médecin bi la ci njëlbeen mais xam nga conclusion yoo xam ne sous réserve ça la d'ailleurs mais ñun li ñu gëm mooy maanaam élément de preuve yi xam ne am nañ ko maanaam amunu sikki sàkk nii maanaam tentative de viol boobu kenn mënu ko werante te incha allah den ko topp ba mu àgg incha allah pour maanaam yoon addu euh, ci yoon nag lu mu ca dogal ñu ñu ànd ceeg moom parce que ñun nous sommes dans un état de droit te nous sommes également respectueux de nos de lépp lu ñu décidé rek ànd nañ ceeg ñoom waaye li xam ne yoon may nañu ko moom kenn mënul téye ba du duñ ko topp incha allah. d' accord euh, dossier bi ngeen ne wax ji bëri woon na ci yow en tant mhm. que avocat mhm. bu Adja Thiaré Diaw mhm. ñu loolu boo ko déggee dañ ko déggee dañ doon politiser waaw non xam nga loolu kenn ku ne ak sa xalaat waaye man li ma gëm daal mooy man ab avocat laa mënumaa wàcc yoon ci yoon rek laay dox li ma gëm mooy man euh, képp koo xam ni yàlla dogal na ma yor sa dossier maanaam dinaa ko topp ci wàllu yoon ba mu jeex tàkk maanaam li ma yoon may dinaa ko topp ba mu jeex tàkk maintenant lu ci yoon dogalit ma respecté ko parce que aussi man mënumaa jàpp ni maanaam ñëpp danoo war a respecté yoon te man ma bëgg a jàdd ci wàllu yoon mënta nekk donc li ñu yoon may comme li ma leen wax la fois d en droit tout ce qui n'est pas interdit est ni yoon may nañu ko den ko def incha allah waaw Adja moom ba fii may wax ak yow wax dëgg yàlla ci loxo yi maanaam euh, waa kër docteur la nekk donc euh, feebar boobu da koo gaar ba léegi waaye ñu bokk ñaanal ko rek yàlla defal ko taw feex waa li ko waral mooy dóor yi ko dóor maanaam li mu wax ni moo am loolu dafa loolu moo koy firndeel parce que am na doomu aadama kenn mënu koo téye hôpital abadan ku nu téye rek daa fekk saw yaram maam la ca la ca nekk la ca war dëgg maanaam amu ca loolu mooy la la vérité donc jàpp nañ ni maanaam tawat ji xam ni gaar na ko mi ngi jugee ci dóor yi xam ni dóor nañ ko ko maanaam ba mu gaar ko boobaak léegi kenn ku ne xam na ni bu nu sañoon tey moom day fekkee maanaam euh, procès bi ba mën a fésal li xew dëgg-dëgg waaye yàlla dogalu ko waaye ñun lan war def nañ ko conformément à la loi tey juge bi àdduna ci lam nu jox ci njalbeen d'accord nañ ci ak moom dañuy wëyal li xam ni yoon may nañu ko incha allah ba koroog ñuy am définitivement vidé nos allégations ba mu jeex conformément à la loi déedéet dañ koy wëyal maanaam lii phase bu njëkk la waaye yeneen yi dañ koy topp ba mu jatak euh, non non loolu ay wax ji yàqu la rek xam nga dama lay wax ne la fii wax dëgg yàlla lu ni fang kenn du ko jeex euh, dóor yi moom kenn ku ne xam na ni ci kaw kay la teg woon waaw non waaw non xam nga loolu comme li ma lay wax wax naa répondre naa ci dama wax ni maanaam maanaam euh, le parquet moom moo am maanaam droit ci régler en fait benn ay fait yuñ ko yuñ ko jox ba mu régler CVB la ni waaye ñun jàpp na ni document dossier yi nu yor maanaam ëpp na ay CVB te lanu yoon may def nañ ko mooy saisir le doyen des juges par plainte avec constitution de partie civile maintenant le doyen va mener une enquête pour xam est ce que wax ñun am na wala amul ak bu amee nan la amee bu ko defee la ca des moom moo koy apprécier. waaw xam nga olof yi nee nañ bëti bëti bëti ci ngaana du jàmbaar xol bu jeex la xam nga moom dafa wax ni magam xaritam dañu koo téye euh, te téye gi ñu ko téye mere na ma ci lool. tey it maanaam na na jàpp ni mi ci sama kaw waaw kooku bu xëyee ni ma man dama am dama ëmb demb euh, wasin démb du ma ko du ko du ko weddi donc wax la joo xam doon du ko tontu xam nga man wees naa kooku kooku euh, maanaam bu ñu seetee ci jaar-jaar maa ngi moom dëppoowuñ ci dara kon lu ko neex mën na ko bu ko neexee sax na wax ni maître Abdina Ndiaye maanaam nangam la nangam la nangam ça ne me dérange pas non jamais man rus naa loolu dama ni man li ma yàlla defal euh, ruus naa di porter plainte doomu aadama ci ay wax wala jëf bu dul lu ma gàllankoor lool loo xam ni sama bakken xaj na ci du ma du ma tax a yëngu lu mën waay def rek man man jéggal naa la man noonu lay doxee lu ma waay def moo xam ci kaddu la wala ci jëf joo xam ne sax du loolu ma lor lool yàlla aar na ma ba loolu àggu ci man jéggal naa ko ko ko def man noonu lay doxee du ma topp kenn ndax rus naa suñu borom mi xam ni maanaam moo ma def li ma def ma war a taxaw samay nawle ci ay mbir yoo xam ne dañ leen tooñ kon may delluwaat man mi xam ni maa féete foofu di topp kenn ci ay wax duma ko def ruus naa loolu yàlla xam na ko ku dul moom sax keneen ku man di doon bu la neexee taxaw ci biti saagaal waxal la neex man jéggal naa ñëpp topp ma kenn dara incha allah waaw yaakaar naa bu nu xayma war naa dese une semaine bu ko desee ci ci kaso te loolu c'est une satisfaction parce que li am solo rek mooy ñun combat bi ñu doon def mooy fexe ba moom dafa taxaw daal di fitturlu wax ni moom yoon mënulu ko dara kenn du ko arrêté mujj nañ ko arrêté ñaf ko ci kaso gi ba tey juge bi dëgëral na ko wane ni fi nekk ñi ci Sénégal réewum droit la képp ku jaar yoon ak koo mën a doon ak koo mën a féete yoon dina dal ci sa kaw te loolu doy nañu sëkk waaw